subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin al-faatixi limaa ughliqa wal-xaatimi limaa sabaqa naasiri al-haqqi bil-haqqi wal-haadii ilaa siraatika al-mustaqiimi wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiya allahu taala an ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyi al-aziim yaa himmata cheikh yaxdari lana bi hada almaxdari waltaatifi bi nadratin taati lana bi zawar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit foo ma nekk ci àddina ñu ngi dellu si di ñëw di la nuyu ci sa tur ak ci sa jëmm di ñëwaat ak yéen beneen yoon ci suñu barkeelu ak suñu nafat ak fàttalante sunna si Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci weeru koor ci jàngal jaamu yàlla yi téere bii nga xam ne mooy saxiwul Buxaari ci kitaabu sawmu tey nag dañuy ñëw ci benn kitaab ci kitaabu saxiwul Buxaari yi mooy kitaabu zakat zakatul fitri tëjee ko incha allah fan yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak yéen ci fàttaliyante ak barkeelu ci sunna si Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci koor ñëw tey ci bunt bii nga xam ne mooy baabu fardu sadaqatil fitri mooy buntu azakaay muurum koor comme ñun Sénégal koy waxee mu ne war a abul aliya wa ata ibnu sirin sadaqatul fitri faridatun mu ne abul aliya ak ata ak ibnu sirin yëpp dañoo gis ne azakaay muuram koor loolu farata la mu ne xaddatanaa yaxya bun muhammad bun sakan xaddatanaa muhammad bun jahdamin xaddatanaa ismail bun jaafarin an omar ibni naafi an abihi an ibni omar radiallahu anhuma qaal فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير min almuslimiina wa amara biha an tuaddi qabla xuruji nnaasi ila salaati mu ne solool nañ jële ci Abdullahi ibnu Omar radiyallahu anhuma mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na zakaati fitri moom mooy azakaay muurum koor saa saa an bu ñu ko waxee mooy ñeenti mudd ci mudd yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne mudd soo bëggee xam mooy lan mooy góor goo xam ne euh, ay loxoom rëyut ba ëpp ay loxoom ndaw ba ëpp dafa digg doomu ñeenti tibbam tibb mooy mudd te ñeentam loolu moom mooy li xam ne moom la ñuy wax ne moom mooy saa bu defee mu ne farataal na asakaay moroom koor saa boo xam ne dafay nekk laa moom tamru la tamru mooy seen dund yi naan dundee tàndarma wala chahir mu ngi mel ni tey soo bëggee wax Sénégal nga ceeb ne dugub ne mboq ne gerte yaa ngi dégg ne saaño yooyu yëpp ci li nga xam ne naan dundee la moom la bëgg wax foofu noonu ci kan ci képp koo xam ne yaa imma jaam nga kuñ moom nga wala ngay gor góor nga jigéen nga ndaw nga mag nga ci jullit ñi nga déggee ci ne kon ku nekkul jullit bokkoo ci sew soow bi foofu mooy ki amee jabar te jabar ji parce que yow may nañ la nga takk koo xam ne ahlul kitaab la yahud lay doon wala nasaara lay doon waaye ñu bëri ci ñoom ci borom xam-xam bi déggee nañ ci minal muslimina bi mooy bu fekkee ne yow mi xam ne yaay borom kër di génnee azakaay muram koor sa njaboot soxna soosu nga amee te doo jullit sooy génnee moom du ci bokk bëri sew-sew boobu moom lañ ciy génnee waaye nag yonent bi dafa wax ne tamit buñ koy génnee nañ ko génnee njëkk nit ñi di génn jëm ca julleekaay ba sallallahu alayhi wa sallam kon lim mu bëgg a wax te jàngale ko ci bunt bi mooy azaka yi moroom la ba wax fay mel ni kon soo ko bëggee tënk ci yu gàtt ci ay tënk-tënkin bi ci njëkk mooy li ngay li ngay njëkk laaj mooy ndax azaka yi moroom koor farata la du farata ñu ne ah, kay farata la farata la te yonent mooy ki nga xam ne moo ko faratal te mooy chaari al kabir mooy ki nga xam ne moom mooy teg loi islam yàlla sante mu koy tegee lan la lan moo tax asama azakaay muram ñu koy joxe xam nga loolu jar laajte que dëgg la farata la yàllaa ko santaane ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tax bi ci njëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dafay laabal aji koor gi aji oor ji ci nga xam ne dafa doon oor ci weer wi ndax yi mën naa am ay njuumte yu sew sewaan yoo xam ne bàyyiwul ko xel sax ci laa moom jëf la ci loo xam ne lu ñaaw la wala ci wax su boobaa nag asaka bi ngay joxe noonu moom mooy laabal yu sew sewaan nga xam ne moo naa yàq sa koor wala bu ko yàquti mën naa wàññi daraja yi nga xam ne moom ngay am ci koor ñaareel bi ci topp ci li tax mu yàlla santaane ko xekk ma bi moom mooy mbokki jullit yi nga xam ne dañoo ñàkk amuñ te bis bi nekk bisi feet ñoom it ñi mën a feetu ànd ak ñun ndax yow nga am di lekk di naan te am nga sa benn mbokki jullit boo xam ne mu ngi sa wet amut soobaa moom bokku ci feet gi waaye nag li nga am ak a néew te li nga am mu doy la ba am lu dees nga génne ca loola jox ko moom it soobaa moom mën a feetu ñu ne loolu mooy xekkma bi ñaar yooyu borom xam-xam ñu ne mooy xekkma bi gannaaw boo xamee ne nag xam nga ne loolu mooy xekkma bi da nga wax ne kan la war yàlla ko santaane bi lii la waaye léegi la war borom xam-xam yi nee na wala yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax mu ne war na bépp jullit ji góor la wala jigéen la ndaw la wala mag la góor la wala jaam la eh, ki nga xam ne nag ndaw la bu fekkee ne moom dafa am alalam nañ ko génne ci alalam bu fekkee amu alal nag ki nga xam ne moom méngoo ay mbiram maanaam muy waajuram baayam wala bu baayam ki méngoo ay mbiram kooku mooy ki nga xam ne moo war a génnee eh, li nga xam ne moom mooy asakaay muuram koram boo koy génnee day fekk ne yow mi nga xam ne yaa koy génnee am nga lu des sa dundu bis boobu noonu comme tey masalan yaa ngi waroon a génnee asakaay moroom koor lu tollook juróom bopp ci sa kër gannaaw boo ko génnee am nga loo desee loo xam ne ma nga ca dund bis boobu noonu waaye ki xam ne ne moom dañuy wax ne li mu am doyul ko ci bis boobu kooku dafa ñàkk daf ko soxla moom kooku boobaa asakaay moroom koor waru ko maanaam parce que moom mi am doyul ko te su boobaa mooy miskiin sax parce que faqir ak miskiin dañ naan kii mooy ci amul dara kii mooy ki nga xam ne li am am na dara waaye li am doyul ko ko su boobu tamit du lu ko war xale bi tamit comme ni ko waxee ci génnee bi nga xam ne yaa ngi koy génnee yow mi nga xam ne yaay borom njaboot gi muy doom yeeg jabar yi ak ñi nga xam ne seen dund yow la war wax nañ ne sopp nañ bu fekkee ne danga nga amee soxna wala ñi nga xam ne seen dund yow la war am na ci koo xam ne mu ngi nekk jigéen ëmb sopp nañ xale bi mu ëmb ñu génnal ko asakaay mu rek waaye du farata nag dañ ko sopp rek waaye charte bi nag mooy mu am euh, fukki fan mu am euh, téeméeri fan ak ñaar fukk téeméeri fan ak ñaar fukk ëmb bi am téeméeri fan ak ñaar fukk soo baa yenn ci borom xam-xam yi ñu ne sopp nañ sooy génnee azakaay morom ko nga génnee yàlla ko moom it xale boobu nga xam ne euh, ñu ngi yaakaar ak ñoom ak segut kenn lañ war a jox azakaay morom koor wér na ne duñ ko joxuñ ko kenn lu dul ñee xam ne dañoo ñàkk mooy foqara ak masakin yi mooy ñi nga xam ne amuñu leen doy comme sànq li ma wax ne miskin mooy koo xam ne li am doy ko ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo elloo asaka yi moroom koor xam nga mu asaka yonent alquran bàyyi ko kenn waxut ne yonent bi waxal asaka ñan ñoo ko war a jël innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum maanaam yàlla dafa tënk ñi xam ne ñoom ñoo yelloo ñu jox leen ko xaaru kenn waxal ko boo moom yàlla moo ko waxal boobam kon loolu leer na ñaaral ba tamit nan la war toll saa la saa wax nañ sànq saa saa bu ñu ko waxee moom mooy ñeenti mudd ci mudd yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yu bëri wax nañ ne léegi bu ñu ko calculé ñeenti mudd mooy tolloo ñaari kilo ak genn wàll ñu ne daal soo bëggee mu gën a wér daal def ko ñetti kilo ñu bëri ci borom xam-xam ñetti kilo moom moo gën a wér ci lan lañ ko war a génnee ci li ëpp ci li ñuy dundee ci réew moomu noonu tey Sénégal li ñu gën a dundee mooy ceeb li ñu gën a dundee moom mooy dugub li ñu gën a dundee mooy mboq lu demee noonu gerte yooyu yëpp mën nañ ko cee génnee su boobaa mooy ñeenti mudd yi xam ne moom mooy saa ci mudd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan lañ ko war a génnee nag ban heure lañ ko a génnee heure bi ko war a génnee te mu gën a wér mooy njëkk ñiy dem ci juleekaay bi waaye wax nañ ne bu fekkee ne am nañu koy dajale di ko laaj man nga ko génnee avant julli gi di ñëw benn fan wala ñaari fan ndax Seydina Omar Abdullah ibn Omar ibn Xataab radiyallahu anhu ma daana ko def ñi nga xam ne ñu daan wër di dajale azakaay muram koor moom daana génnee azakaay muram koor njëkk ñuy julli benn fan wala ñaari fan moo tax ñu ne su boobaa loolu tamit dara nekku ci génnee ko njëkk julli benn fan wala ñaari fan su loolu mën naa nekk waaye nag yéexee ko gannaaw ba julli ba pare loolu moom su boobaa yow sarax rek nga am comme ni ngay saraxee waaye amatoo azakaay muram koor ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ba ne man addaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula bu fekkee ne da koo joxee joxe ko jëkk ngay julli ji zakaat buñ nangu la waaye nag fekkee da ngaa yéexee gannaaw boo jullee pare su boobaa sarax la comme yeneen sarax yi rek kon nga déggee ci ne avant ngay julli ji avant julli korite gi taxaw benn fan wala ñaari fan mën nga génnee waaw boo xëyee tamit bala ngaa julli ji génnee ko bala ngaa dem waaye nag dem julli ji ba ñëw soo di ko génnee soo waa yonent mu ne am nga sarax rek comme yeneen sarax yi waaye amoo li nga xam ne mooy azakaay morom koor bi ci topp na mooy ndax jaadu na azakaay morom koor ñu koy génneel xaalis wala force rek lekk yi la war doon. jamono bi ñu nekk borom xam-xam yi seen fatuwaay yu bees yi wax nañ ne mën naa nekk ànd ak ne ñu bëri ci ñoom ci njëkk ji dañ ko daan bañ na ñoom waaye fatuwaay yu bees yi am léegi surtout ci dëkk tubaab yi wax nañ ne mën nañ koo génneel xaalis ndax lu tax wax nañ ne objectif bi lan la moo wax nañ sànq objectif bi njëkk mooy dafay laabal aju or ji ci yenn rëcc-rëcc yi ñaareel bi ci topp moom mooy fexe ba nga xam ne suñ mbokk yi nga xam ne ay jullit lañ te ñàkk ñoom it ñu mën a feetu ànd ak ñun ñu ne waaw léegi nag tey yow bu fekkee da ngaa ne ci dëkk bi ah ñu génnee la asakaay muuram koor jox la ceeb jox la nangam jox la nangam te war ngaa jënd yàpp war ngaa jënd nangam war ngaa jënd diw war ngaa togg bala ngaa dem di ko wecceeku di ko jaayaat jox la xaalis benn yoon mu gën a yomb ñoom loolu la ñu wax moo tax tey boo demee fu mel ni Amérique ak Europe tey natt nañ asakaay muuram koor fu mel ni Amérique ren ñu ngi wax ne six six dollars la ci benn bopp bu nekk que dañoo gis ne soo amoon six dollars dem ci benn boo xam ne bu digg doomu la restaurant boo xam ne wàccul lool cherul lool boo amee 6 dollars nga am loolu lekk boo xam ne da nga suur tey boo demee Europe tamit ñoom ñu ngi ci diggante 7 euros naa joxe 7 euros mu nekk azakaayu murum koram léegi génnee ko ci dëkk bi nga nekk yóbbu ko ci beneen dëkk loolu moom am na borom xam-xam yu dañ ko bañ waaye am na ñoo xam dañ ne bu fekkee ne eh, ña nekk soxla wuñ ko mën koo yóbbu ci beneen place boo xam ne ay jullit tëng xam ne soxla nañ ko kon nag ñi nga xam ne ñu ngi Europe eh, wala ñu ngi Amérique amee azakaayu murum koor foofu noonu bu fekkee ne amul ay jullit yu fa nekk seen wet soxla ko dañ mën nañ koo dajale di ko yónnee Sénégal fii am na ay mbokk yu bari yu fi nekk yoo xam ne soxla nañu asakaay morom koor lii daal lañ andi pour tënk ko ci ay baat yu gàtt pour ñi nga xam ne asakaay morom koor ñi xam ne farata la dafa war képp koo xam ne jullit la ki nga xam ne moom mooy borom kër am ñoo xam ne moo leen war a dundal ñooñu ñëpp njabootam xam ne moom ci moom lañu aju seen asakaay morom koor ci moom la moom la moom la aju kon nag eh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax beneen yoon bala ñoo tëj darsu bi ndax tey mooy suñu mujj ak euh, darsu fii nii ci ramadan bi ñaan yàlla yàlla nangul ñi lépp loo xam ne jàngale nañ ko ci kor gi yëpp yàlla yàlla nangul ñi ko lépp lu ciy njuumte yàlla ñu ko yàlla jégal dañ doon jéem rek ànd ak média xadara bi ba Barham universel ak Fayda Tijaniya ak Malben ak mimbarul fayda ak yeneen mbokk yi fi nekk yëpp nga xam ne suñu mbokk Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne mi ngi amee euh, Nour Sabah TV xam ne mën nañoo wax ne barnaam bi moom moo ko commencé ndax moom mooy ki nga xam ne moom moo ñu proposé daaw pour ñu def dars wax dëgg yàlla bi nga commencé mbokk yi yëpp bàyyi seen itte yow ñoom it ñëw di ànd ak ñun di jàppalante ñun pour ñuy góorgóorlu di jéem a saare parkeelu ak jàngaleem Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci jàngaleem yonent yàlla ànd ak ne xam-xam nekku fi waaye ñu gis ne ah tashabahu in lam takunu mislahum fa inna tashabuha bil kirami falah wa rabahu ndax sëñ Ahmad Tidiane Cissé mu ngi ci jumaa ji di jàngale bis bu nekk saxul Buxaari moo gën a wér moo gën a leer waaye ñu ne ñuy rek topp maam nurul nurul leen loolu rek moo ci dugal ñu ngi dellu beneen yoon di gërëm di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay ndax kenn joxul leen benn yoon crédit waaw maam jox leen xaalis waaye crédit sax joxuñ leen ko ñooy ñëw fii ak seen i moyen amuñ benn moyen moo tax maa ngi à travers ci bis tay bii nii ci média xadara ibrahima yi yëpp di wax mboolem taalib bàyyi fu mën a ci àddina bi nañ bàyyi xel média xadara ibrahima yi bii surtout ñi nga xam ne ñoo ne ci biti yaakaar naa ñoom xam nañ luy seen njëriñ ndax lépp lu ñu gis ci pay bi ñoom ñoo leen koy jox te amuñ benn moyen benn moyen amuñ ko seen moyen bopp rek la ñuy góorgóorloo tafsir yi Mawlana Cheikh al Khalifa Seydou Cheikh Mahamadou Mahi weer bi yëpp ñu ngi ànd ak moom bis bu nekk bàyyi seen itte bàyyi seen kër yi seen crédit ji dugal amul kenn ku leen dimbale ci dara tafsir Cheikh Hasan Cheikh euh, al Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ci jumaa ji moom it kazalika ak yeneen programme yi am ci PIE bi yëpp noonu la koy defee dëgg-dëgg kon mooy ne taalib Baay foo nekk war ngaa jàpp ci liggéey bi ah ci lépp loo xam ne dana yombalal ñu mën a def seen liggéey te duñu am benn jafe-jafe maa ngi ciy lancé appel mboolem taalib Baay ne ci àddina bi ci Europe ak Afrique ah Amérique yëpp ñu leen jàppale leen dimbale leen ndax ñoom buñ leen dimbalee buñ taxawee rek incha allah kër gi dana avancé te lépp loo xam ne lu fi nekk la ñu war koo génnee ñoom danañoo génnee maa ngi dellu si beneen yoon di gërëm waa dars bi daa iman nga xam ne ñoom ñi ngi nekk ñun daa iman waaye di gërëm suma mag Cheikh Moustapha nga xam ne dëgg-dëgg euh, bàyyi na itteem yëpp ñëw teewa ak ñun lii dafa ñuy encouragé rek encouragé rek la parce que war nañu maanaam li ngeen nekk noonu lañ ko bëggee ndax bu ko neexoon mu toog néegam mu ko daan fan yëpp te doyoon ndax loolu rek doy nañu encouragement heure bu ñu gisee nañu macha allah maa ngi koy sitaan waaye nag mu bàyyi itteem yëpp sol daal la mu ñëw Cheikh Mouhamed a ngi ne dugg si suñu rakk moom it Cheikh Ibrahim Cheikh Abdou ak mbokk yi fi nekk yëpp bu ñu tuddee ñenn tudd nañu des ñëpp loolu dëgg-dëgg daf ñuy yokk ne ah liñ nekk nii war nañ ci góorgóorlu ah ndax mooy yoon yi bàyyi mooy yoon yi maam yi ànd ak na nag xam-xam bi nekku fi waaye ñu ngi dellu di gërëm beneen yoon Mawlaay Xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi di ñaan yàlla eh, dellu bi ñu dewoon lépp loo xam ne yóbbuwoon na ko fa ci soxlaayu jaam yàlla yàlla na yàlla nangul ko lépp eh, te yàlla dimbale ko gën a yokk fanam lool gën a yokk wéram gën koo dëgëral maa nga xam ne mission bii ñu teg ci loxoom muy mission bàyyam Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu yàlla gën koo dëgëral dëgëral mboolem kilifaay pie bi gërëm ci suñu waajur Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Sëriñ Bay moom mission bi nga xam ne mu ngi tegee ci loxoom muy xali xilaafa bàyyam sax Cheikh Sëriñ Bay radiyallahu anhu yàlla ko koo dëgëral gën ko dimbale ak mboolem kilifaay pie yëpp Mawlaay Imaam Cheikh Hasan Cheikh porte-parole naati xulaas mi Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé ak suma Amin Cheikh Ibrahim Niass yàlla gën koo mooy delloosi ko ci jàmm mu ànd ak wér ñi ngi gërëm ñëpp leen jox rendez-vous di gërëm mboolem média bi comme sànq ni ko waxee dëgg-dëgg seen liggéey rafet na ah taxawaay bi am na solo ndax lii rek wane leen ne bàyyi rek ngeen ñu liggéeyal ndax seentu leen dara ci liggéey bi lu may pour tasaare xam-xam ak tasaare euh, liggéey bi Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil loo xam ne jum na tey sawaab yàlla ko yàlla nangul te boole ñu ak ñàkk xam-xam ak ñàkk xam wax yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla jégal yàlla ay aji xam ca dëgg-dëgg xam yàlla ñu yàlla xamal in uridu illa al islaha ma sataatu ma tawfiqa illa billah allahuma salli ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah